bi yeesu amee ñaari fan ci dëkk ba mu jóge fa jam diiwaanu galile ndaxte moom ci boppam nee woon na ab yonent kenn du ko faay dal ci réewam bi mu agse galile nit ñi teeru ko ndaxte ñoom itam teewoon nañu ci màggalu besu jéggi ba ci yerusalem te gisoon nanu la mu fa defoon lépp noonu kon mu dellu si kana ci galile dëkk ba mu soppe woon ndox ma biiñ amoon na benn dagu buur bu dëkkoon kaparnawum te doomam feebar bi mu dégge ne yeesu jóge na yude ñëw galile mu dikk ci moom ñaan ko mu ñëw kiram wéral doomam ji wopp bey bëgg dee yéesu ne ko yeen daal dangeen gëm fi ak gisuleen ay firnde walla ay kéemaan dagu buur ba neeti ko sanga bi ñëwal bala sama doom di dee yéesu ne ko demal sa doom dina dund kilifa ga gëm la ko yéesu wax daldi dem bi muy dellu kiram nag ay surgam gatandu ko ñu daal di ne ko xale bi dina dund mu laaj leen ci ban waxtu la tàmbale tane ñu tontu ko ne demb ci njolloor la am ak feex noonu baayu xale ba daldi seetlu ne ci waxtu woowu la ko yeesu ne woon sa dina dund moom ak njabootam gépp ñu daldi gum yeesu lii mooy ñaareelu firnde bi yeesu def ci galile gannaaw bi mu jege yude gannaaw loolu yawut ya amoon nañu genn màggal moo tax yeesu demoon yerusalem ci wetu benn ci bunti dëkk ba nag maanaam ci buntu xar am na bët bu tudd betsayda ci lëkku yawut te ko ak juróom mbaar ci suufu mbaar yooyu la jarag yu bare yu deme ni ki ay gumba ay lafañ ak ay laggi daan tëdd di xaar ndox mi yëngutu ndaxte ci ni ñu ko nettale benn malaakam borom bi di daan wàcc léeg-léeg di jax ndox mi bu ndox mi masa yëngu ba noppi jarag ja jiitu wopp ju amoon dal di wér ci saasa amoon na fa benn waay bu feebaroon lu mot fanweeri at ak juróom ñett bi ko yéesu seene mu tëdd te mu xam ne woppam ji yàggoon na mu laaj ko ne ndax bëgg nga wér jarag ja tontu ko ne sanga bi duma am kuma soob ci ndox mi bu yengoo su ma ci fexe dem ñu jikk ma ci yeesu ne ko jogal jël sa basaŋ te dox ci saasa mu daldi wér jël basaŋam daldi dox mbir moomu dafa daje woon ak bésu nooflaay ba loola tax ba yawut ya dal di ne nit ku wér tey bésu nooflaay la te sunu yoon aaye na ngay yor sa basang mu ne leen ki ma faj moo ne jëlal sa basang te dox ñu ne ko nag ku la ne jëlal sa basang te dox waaye waa ji xamul ki ko weral fekk boobu yeesu dem na te nit ñu bare teewoon nañu ci bereb ba bi ñu ci tege ab diir yéesu dajeek moom ci kir yàlla ga ne ko déglul fii ne wër nga bul defati bàkkaar ngir ragal lu yees lii dal la noonu nit ka dellu ne yawut ya yeesu moo ko fajoon loolu tax yawut ya di wut sonal yeesu ndaxte daan na jëfe noonu ci bésu nooflaay ba waaye yeesu tontu na leen ne sama baay nekk na ba tey ci liggéey kon man itam demay liggéey baat boobu moo tax boo yawut yi gën ko wutarey ndaxte yemul woon rekk ci bañ topp ndigalu bés nooflaay ba waaye dafa wax it ne yàlla baayam la bo teg boppam yàlla noonu yeesu ne leen ci dégg dëgg maa ngi leen koy wax doom ji munu def dara moom ci boppam li mu gis baay bi di def rek lay def li baay bi di jëf la doom ji itam di jëf ndaxte baay bi bëgg na doom ji ba di ko won lépp lu muy def te dinaa ko wan jëf yu ëpp kiimaan yi ngir ngeen gina waaru maanam ni baay bi di dëkkale ñu dee di leen jox dund gi noonu la doom ji di joxe dund gi ñimu ko bugg jox baay bi du atte kenn atte bi yépp jox na ko doom ji ngir ñépp di teral doom ji ni ñuy terale baay bi ku teralul doom ji teraloo baay bi ko yónni ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku dégg sama kàddu te gëm ki ma yónni am nga dund gudul jeex te doojar ci atte ba te génne nga ci dee tabbi ci dund ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax jamono dina ñëw te agsi na ba noppi mooy jamono ji ñu deeñi di dégg baatu doomu yàlla ji te ku ko dégg dinga dund ndaxte ni baay bi amee dund gi moom ci boppam noonu it la ko maye doom ji mu am ko ci boppam jox na doom ji itam sañ-sañ at te ndaxte mooy doomu nit ki buleen ci dara jaaxal ndaxte jamono ngi ñëw ju néew yépp yi nekk ci seen bàmmeel di dégg baatam tey génn ñi daan jëf lu baax dinañu dekki dund ba faw waaye ñi daan jëf lu bon dinañu dekki ñu daan leen mënuma def dara man ci sama bopp ni ma baay bi di digale rekk lay atte te sama àtte bu jub la ndaxte defuma sama bëgg-bëgg ci waawi ki ma yónni dong lay aw su ma seedelee sama bopp sama wax du am maana waaye keneen moo may seedel te bir na la muy wax ci man dégg la yéen yónni ngeen ay ndaw ci Yaxya te seede na dégg gi man ci sama bopp soxla wu ma seedes nit waaye nag damay wax loolu rekk ngir ngeen mucc yaxya meloon naa ni lampa buy takk tey leeral te nangu ngeen banneexu ab diir ci leeram waaye yor na ci man seede su gina mag si ma yaxya di seedel maa ngi def jëf yi ma baay sant jëf yooyu may def nag ñooy seede ne baay bi moo ma yónni te baay bi ma yónni moom itam seede na ma musuleena dégg baatam te musuleena gis xar te kàddoom saxul ci yéen ndaxte gëmuleen ki mu yónni yéena ngi gëstu mbind yi ndaxte dangeen cee yaakaar dund gudul jeex bind yooyu nag far ci sama mbir lañuy wax te bëgguleen a ñëw ci man ngir am dund wutuma tagg yu jóge ci nit waayeen xam naa leen leer na ma ne amuleen ci seen xol benn mbëggeel ci yàlla man ñëw naa ci sama turbaay te nanguwuleen ma waaye bu keneen dikke ci turu boppam ngeen nangu ko bëgg ngeen ku leen di tàgg te wutu leen ngërëm li jóge ci jenn yàlla rekk ji am kon nan ngeen mën a geme bu leen xalaat ne maa leen di jiiñ dara ci sama kanamu baay muusa mi ngeen yaakaar moo leen bi booleek moom bu ngeen gëmoon muusa di ngeen ma gëm itam ndaxte seedel na ma waaye su fekke gëmuleen li muusa bind kon nu ngeen mën a gëme sama bax gennaaw loolu yeesu dafa jàll dexu galile maanaam dexu tibreyat mboolo mu bari topp ci moom ndaxte gisoon nañu firnde yooye mu wone ba mu weralee jarag ya yeesu daldi yeeg ci kaw tund toog fa ak ay taalibem fekk na boobu bésu jéggi ba di màggalu yawut ya jubsi bi yeesu xoole gis mboolo mu rëy di ñëw ci moom mu ne filip fu nuy jële mburu munu leen muna dundale bi muy wax loolu it de doon seetlu filip ndax te xamoon naa boobu li mu nara def filip ne ko peyug juróom ñetti weer sax bu nu amoon du leen mun a doy ci mburu ba kenn ku nekk ci ñoom am ci dogg wu ndaw keneen ci taaliba ya di andre mi bokk ak simon piyeer ndey ak baay ne ko am na ci mboolo mi ab xale bu yor juróomi mbur ak ñaari jen waaye loolu lu muy jiriñ mboolo mu tollu ni yeesu daldi ne taaliba ya na ñépp toog fekk ñax mu bare amoon ci bereb ba noonu góor ñépp egg suuf waroon nañu mat juróomi junni yéesu daldi jël mburu ya gërëm yàlla ba noppi seddale ko ña fa mu jox leen itam jën ba ñu doyal sëkk bi ñu lekke ba regg yéesu ne taaliba ya dajale leen desitu mburu mi ba dara du ci réer ñu dajale ko daldi feesal fukki peñ ak ñaar ak desitu juróomi mburu yi ñu doon lekk bi nit ña gise firnde jooju yeesu wone ñu ne dëgg-dëgg kii mooy yonent bi wara ñëw ci àddina yéesu gisne dañu ko nara jël si fal ko buur mu bàyyi fa dellu moom rekk ci tund wa bi timis jote taalibeem ya wàcc ci tefes ga dugg ci gaal di jàll dex gi jëm dekku Kapernaum booba guddi woon na te yéesu ak seegul ci ñoom dex gi yëngu na lool ndaxte da doon ngelaw ak doole bi ñu joowe lu wara tolloog juróomi benn kilomètre ñu seen yéesu muy dox ci kaw dex gi jëm ci ñoom ñu daldi tiit waa yeesu ne man la bu tiit noonu ñu nangu ko dugal ci gaal ga gaal ga daldi teer ci saasa ci fa ñu bëggoon a wàcc ci ëllëg sa mbooloo ma des ci geneen wall dex ga gis ne genn gaal ga fa nekkoon rekk dem na xam nañu ne yeesu bukku ko woon ak taaliba ya ndaxte ñoom rekk àndoon waaye yeneen gaal yu jóge dëkku tibrayaat ñëw teer ci wetu fa ñu lekke woon mburu ma genna bi borom bi sante yalla ba noppi bi mbooloo mu gise ne yeesu walla taaliba ya kenn nekkatu fa ñu dugg ci gaal yu dem seeti ko kapernawum bi ñu fekke yeesu ci geneen walla dex ga ñu ne ko kilifa gi kañ nga fi ñëw yeesu ne leen ci dégg-dégg maa ngi leen koy wax firnde yi ngeen gis taxul ngeen may seet yéena ngi may wër ndax mburu mi ngeen lekk ba suur bu leen liggéeyal ñam wu yàqu liggéey mooy ñam wu sax abadan te joxe dund gudul jeex ñam woowule doomu nit dina leen ko jox ndaxte moom la yàlla baay bi tànn mu nekk ndawam noonu ñu laaj ko ne lu nu wara liggéey ngir matal jëf yineex neex yàlla yeesu tontu leen ne jëf ji neex yàlla moo ki mu yónni ñu ne ko ban firnde nga nu wan ngir nu gëm la ban liggéey nga nara def sunuy maam dunde nanu man ci manding ma ndaxte mbind mi nee na jox naa leen ñu lekk ñam wu wàcce ci asamaan yeesu waxaat ne ci dégg-dégg maa ngi leen koy wax du muusa moo leen jox ñam woowu wàcce ci asamaan sama baay ci boppam moo leen di jox ñam wu wóor wi wàcce ci asamaan ndaxte ñam wi yàlla di joxe mooy ñam wi wàcce ci asamaan tey jox àddina si dund gi ñu ne ko nag sang bi kon deenu faral di jox ci ñam woowe yeesu tontu leen ne man maay ñam wi joxe dund gi ku ñëw ci man doo xiif mukk te ku ma gëm doo mar waaye wax naa leen ko ba noppi gis ngeen ma te taxul ngeen gëm képp ku baay bi jox dina ñëw ci man te duma dàq mukk kii may fekk si ndaxte wàcciwu ma ci asamaan ngir def sama bëgg-bëgg waaye demay motal bëgg-bëgg ki ma yónni lii mooy bëgg-bëgg ki ma yónni bu ma kenn ci ñi may defat bëgg it mm, ma dekkal leen keroog bés bu mujj ba ndaxte lii mooy bëgg bëgg baay bi képp ku gis doom ji te gum ko am dund gudul jeex te bés bu mujj ba dinaa ko dekkal yawut ya tàmbale di ñu romtu yeesu ndaxte defa ne maay ñam wi wàcce ci asamaan ñu naan ndax kii du yeesu doomu yuusufa xam nanu ndeyam ak baayam kon nag lu tax léegi mu naan mu ngi jóge asamaan yeesu ne leen bay leen seen ñuromto bi kenn mënula ñëw ci man te baay bi ma yónne xiirlal ci te man dina la dekkal keroog bés bu mujj ba yonent yi bind nañu kàddu gi yàlla dina leen jàngal ñoom ñépp kon nag ku déglu te nangu waxi baay bi dina ñëw ci man tekkiwul ne kenn mus na gis baay bi ki joge ci yàlla donga ko gis ci dégg-dégg maa ngi leen koy wax ku gëm am nga dund gudul jeex maay ñam wi joxe dundu gi seeni maam lekk nañu man na ci manding ma teewul dee nañu waaye ñam wi wàcce ci asamaan ku ko lekk doo dee man maay ñam wi dundu te wàcce ci asamaan ku lekk ci ñam wi dinga dundu bo faw te it ñam wi may joxe ji sama yaram la dema koy joxe ngir àddina mën a dund noonu yawut ya werante werante bu ci seen biir naan naka lanu waa ji joxe yaramam ngir nu lekk ko yeesu ne leen dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax bu ngeen lekkul yaramu doomu nit ki naanu leen deretam du ngeen am dund gi yeen ku lekk sama yaram te naan sama deret am nga dund gudul jeex te dinaa la dekkal keroog bés bu mujj ba ndaxte sama yaram mooy ñam wu wóor wi te sama deret mooy naan gu wóor gi kii lekk sama yaram tey naan sama deret dina sax ci man ma dekk ci moom baay bi ma ni mu ngi dundu te maa ngi dundu jaarale ko ci moom noonu itam ku may lekk dina dundu jaarale ko ci man kon nag ñam wi wàcce ci asamaan a ngi noonu bokkul ak ñam wu seen maam lekkoon te faatu ku lekk ñam wi may wax dinga dundu ba faw baat yooyu la yeesu wax bi mu doon jàngale ci jàngu ba ci kaparnaw bi ñu dégloo yeesu ba noppi taalibeem yu bari nee nanu njàngale mi de jafe na kan moo ko mun a déglu yeesu gis ne taalibeem yaa ngi ñuramtu lool mu ne leen ndax li ma wax da jaaxal lan mooy am nag bu fekke gis ngeen doomu nit ki dellu yeeg fa mun jëkkoon nekk xelu yàlla mi moo joxe dund gi ñam wi jiriñul dara kàddu yi ma leen wax ci xelum yàlla lanu joge te ñooy joxe dund gi waaye am na ci seen biir ñu ko gëmul ndaxte yeesu xamoon naa ci njalbeen ga ñan ñoo ko waroon a ak kan moo ko waroon a wër mu dolli ci it ne loolo tax ma ne kenn mënu ñëw ci man te baay bi mayu la nga agsi ci loolu taalibeem yu bari dëpp ba ñatee ànd ak moom yeesu daldi wax ak fukki taalib yi ak ñaar ne leen mbaa bëgguleen a dem yeen itam simon piyeer ne ko boroom bi ci kan lañuy dem yaa yor kàddu yi joxe dundu gudul jeex léegi nun gëm nanu te xam nanu ne yaa di aji sell ji joge ci yàlla yeesu daldi tontu ne xanaa duma leen tànn yeen fukki ak ñaar moona am na ci yeen koo xam ne seytaane la yuda mi doomu simon iskariyo doon wax ndeke yuda la muy bokk lépp ci fukki taaliba yi ak ñaar moo ko naroon wor gannaaw loolu yeesu doon na wor diiwaanu galile bëggul woona dem diiwaanu yude ndaxte yawut ya dañu ko doon wuta fekk na bésu xewu yawut ya ñu koy wax màggalu mbaar mu ngi doon jub si noonu rakk yeesu yu ne ko jóge fii te dem diiwaanu yude ngir say taaliba gis ñoom itam jaloor yi ngay def ku bëgg si doo bu say jëf boo demee bay wone jaloor yu mel ni fexeel ba ñépp gis la rakkam yi dañu doon wax loolu ndaxte ñoom itam gumuñu ko woon yeesu ne leen sama waxtu jotagul ci yéen nag waxtu yépp a baax àddina du bañ waaye bañ naa ma ndaxte maa wax ne seeni jëf baaxul yéen nag dem leen màggal ga demaguma màggal googu ndaxte sama waxtu jotagul bi mu leen waxee loolu ba noppi moom mu des galile bi rakkam ya deme ci màggal ga yeesu itam soga dem te kenn yegu ko siiwalul demam fekk yawut yaa nga ko doon seet ci màggal ga te naan ana waa ci biir mboolo may ñu ngi doon deeyante di wax ci ay mbiram ñii naan nit ku baax la ñee naan déedéet dey nax nit ñi waaye kenn ñemewu ko tudd ci kaw ndaxte dañu ragaloon yawut ya bi ñu demee bo ci digg màggal ga yéesu dem di jàngale ci kër yàlla ga yawut ya nag jaaxle daldi neen waa def boo xam lii lépp moom mi jàngul yéesu daldi leen tontu ne li may jàngale jogewul ci man waa ci ki ma yónni la joge ku fas yéene wey ci bëgg-bëggu bëgg yàlla dinaa xam ndax sama njàngale ci yàlla la joge walla ci sama coobare nit ki wax ci coobarem nag day wuta màggal boppam waaye kiy wuta màggal ki ko yónni dëgg rekk lay wax te jubadiwul fen xanaa du muusa moo jox ndigali yàlla yi kenn ci yeen sàmmu ko lu tax ngeen bugg maa rey mboolo ma ne ko xanaa danga am ay rab ku lay wuta rey yeesu ne leen benn jaloore rekk laa def te yeen ñépp ngeen jaaxle lii leen muusa jox ndigalu xarafal gone yi jógewul ci muusa mu ngi tàmbale ci seen maami cosaan moo tax ba ngeen nango xarafal nit ñi bésu noflaay bi bu ngeen mënee xarafal nit ci bésu noflaay bi ngir bañ a wàcc yoon muusa lu tax nag ngeen mere ma ndax li ma ci weral nit lem bay leen di atte ci ni ngeen di gisse te di atte dégg am na ci waa Yerusalem ñu doon wax naan xanaa du nit kii lañuy wutarey xool leen mu ngi wax ci biir nit ñi te kenn du ko wax dara ndax sunu kilifa yi dañu xam ne mooy almasi bi waay waa ji xam nanu fu mu jóge te saasu almasi bi dee dikk kenn du xam fu mu bayi ko yeesu di jàngale ci kër yàlla ga dal di wax ci kaw ndax xam ngeen ma te xam fi ma jóge ñewlu ma sama bopp waaye ki ma yónni ku wóor la yéen xamuleen ko man xam naa ko ndaxte ci moom la jóge itam moo ma yónni noonu ñu koy wuta jàpp waaye kenn munu la ko woon dara ndaxte waxtoom jotagul woon moona nag ñu bare ci mboolo ma gëm nañu ko ñu nga naan ndax bés bu almasi bi dikk ay firndeem dina ëpp yu nit ki farisayan ya daldi déggale mboolo ma doon deeyante ci mbirum yeesu sëriñ su mag ak farisan ya yebal ay alkaati yu daan wattu kir yàlla ga ngir ñu jàppi ko yeesu wax ne dinaa nekk ak yeen fi ak ab diir soga dem ci ki ma yónni dingeen ma seet waaye du ngeen ma gis te du ngeen mën a dem fa may nekk yawut ya di la jante ci seen biir naan fu muy dem fu nu ko dul fekk mbaa du defa nara dem ci yawut ya gàddaaye ci gerek ya te jàngali gerek ya lan la mu wax di tekk di ngeen ma seet waaye du ngeen ma gis ak du ngeen mën dem fa may nekk